ànd koog Medoune Thioune foofu ba tey boo ma boole xale yii ak seen jëwriñ Ahmadou liggéey bi nag am na. Allô ki mooy bàyyiloo luñ ca war a def loola du taxaw dañ koy daal di def duñ ca am soo waaye ñëw gi moom bi ma ko bëggee yàgg na lool ndax dama fay am ay wóllëre yoo xamante ni ba ma leen di xam booba kenn xamagul woon ni sax euh, dinañ dem ba toll fii ci jamono fi mu toll te ñu ngi ci biir dëkk bi fii lañ juddoo fi lañ yaroo fi la ñu màggee seen cosaan yëpp fii la mu amoon bu yàgg yéene nag ñëw fekk si leen fi tey la ko suñu boroom dogal ci mbokki taalibe bi yii nga xam ne dañ di ay xale day tur tànk toll ci àdduna fi ñu toll fi la leen yàlla sama borom soxla fi la leen àdduna soxla fi la leen seytaane soxla fi lañ soxlaa seen bopp fi la leen seen i wayjur soxla ñu bàyyi loolu yëpp ginnaaw wuy si Sëriñ Tuuba kon moo tax bu ñu nekkoon ci diggu Manding ma ñu jàpp ni kenn warul leen fa fekk Serigne Touba xam ne ni daan simeeku bi dafa yaramu ne ndox ba fekk leen ndax ñoom ñoo ko def loolu moom na ma leen ko waxee woon rek loolu laa leen wax dangeen a jox seen bopp sëriñ Touba te yàlla rek tax noonee nag laa leen joxe sama bopp te Serigne Touba rek tax te yàlla rek tax te barke Xaadimu Rasuul lu ngeen soxla rek pare nañ ca loola pour loola nekk li ci des addunay kese la rek du dara adduna la rek adduna moom dafa nekk loo xamante ni bii nit ñi dañ koy faral di bàyyi xel lool di ko jàpp lenn rek moo fi mat a bàyyi xel lenn kese muy sama borom wàcce gim ñu fi wàcce ak la tax mu wàcce ñu fi ñu góor góorlu ci suñu kem kàttan ba fexe ba loolee noonee bañ a manqué ci ñun lii daal ku ci nekk yaa ngi ci li yàlla sama borom gërëm ku ci nekkul nag na la seeree ni bu ëllëgee ci sa mbirum bopp nga nekkoon rëccu rek nga ciy mujje doo ci jële mukk lu la leer kon nañu gën a doolee góorlu bu baax sang yii nga xam ne ñoom ngeen fi nekkal ñuy sëriñ Touba ñu di leen xoole sëriñ Touba jàppe leen leen sëriñ Touba de leen xoole Serigne Touba te bañ leen a jàppe rek doomu aadama yi simple yi ñu doon ndax yàlla sama boroom moo bind wuutale tey jii nii dëkk bii ngeen nekk am na ñu fi nekk ñoo xam ni ay doomu aadama lañ ni ñun waaye li tax sama borom wuutale tey kër yi boo fa duggee kër gu nekk na muy dunde ak këru morom ja na muy dunde bokkuñu nit ñi il faut ñuy jariñoo seen i xel ngir seenu ngëm suñu borom gën di mën di dëggu ci ñoom di gën di mën di sax ci seen bopp nit ki dafa am foo xam ne boo fa tolloo da ngay soññ sa bopp ci sa diggante ak sa borom waroo sax xaar ku lay soññ waaye yow yaa soññ sa bopp ci gis ni sama borom ni mu la wuutaleeg sa morom mii noonee la sàkke leneen ci seen biir lu leen wuutale loo xamante ni bi bët du ko gis xel ko xalaat ba daj ko xol lañ si koy gëmee te loolu xol lañ si koy toppe kon loolu faw nit ñi di ko bàyyi xel wax ju bari jeeg diingat bu bari beeg diw def na laa diw def warta def la loolu yëpp kenn ku nekk ñii sama borom da leen a baax ñii sama borom da leen a nattu ñii dañoo dem ba nekk ci loo xamante ni bii jaaduwut sama borom bàyyi leen seen bopp ñett ñi kenn ku ci nekk nag yaay xool fa nga bëgg a féetale sa bopp nga féetale fa sa bopp boo nangoon sama borom bi mu la sàkkee li waroon ci yow yëpp def na ko ba nopp la ca des mooy digal na la tere na la te lam li digal lépp boo ca nekkee sa njariñu bopp la lim la tere lépp boo ko boo ca nekkee tamit sa musiba rek ngay mujj a nekke kon nga xool lim la digal te nga xam ne njariñ la nga góorgóorlu ci sa kem kattan lim la tere te muy musiba ci yow nga jëm ko moytandiku ko sa kem kattan yaakaar naa ni loolu mooy gën ci ñun ñëpp ci kenn ku ci nekk nañu gën a góor góorgóorlu bu baax dama xam ne bu ñu ko toppee di ko benn bennal noonu ba moytuwul fii la ñuy fanaan ndax fi jamono toll la xoolal tey fii boo fi xoolee rek sa yaram dafay daw ndax boo xoolee ñun ñi fi nekk ñepp bu weesoo kilifa yu mag ñii suñu bàyyi yi nga xamante ni ñoo fi nekk lii mooy yàlla lii mooy yàlla ay ndaw yi kese ñu mën a daje di def te li ñuy def kenn ku nekk yaa ko gën a bëgg sa moroom ci sa biir xol lii mooy yàlla te lii Serigne Touba rek ko man Serigne Touba rek ko waral li kon nag waaw nañu jàpp ci Serigne Touba. ma ñëw ma ñëw ma wax téléphone moo yor ji nag toll na foo xamante ni bii diiney lislaam kenn ku nekk ñenn ñi ñu ngi koy dundee nu mu leen neexe te ah ah du noonu de du noonu de suñu yoonu murit wii ñu nekk sëriñ Touba mi sonn ci lëj daj li muy daj lépp ngir diinay lislaam ngir sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ndigalu suñu borom ñëw ñu wëlbati ko war ko dunde nu ñu neexee déedéet du noonu de du noonu de sëriñ tubaab bi muy futtiku di liggéeyali yonent bi sallallahu alayhi wa booba du tey de kon nag du dem ba tey doon ay yaafus yoo xamante ne bi dañuy seetaan sëriñ bi muy wéet ci wéetaayam boobee nga xamante ni bi da ko yàgg a wéete dem ba suñu borom wéttali ko tey mu wéttali ko suñu borom ba am wéttaale ba noppi ñu wëlbati ko nag bëgg a doxale leneen ci diggante ba du mën a ne de que ça soit clair kon li fi nekk tey dëgg ñun ñëpp nañ ci nekk dee leen jàmmu seen borom dee leen julli tey woor tey jàng alxuraan te xam ne ku ko deful da ngay perte àdduna da ngay perte àllaaxira ndax sëriñ Tuubaa lépp lu ko waay yaakaare lu mu mënti doon lu dul yàlla yi kese ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak alxuraanul karim lim daan dundal boppam képp ku wàcc dund googee na la seeree foo nekk yaa fa nekk waaye sëriñ bi nekku fa ak yow. bu fekkente ni nag dañoo nar a ànd te yàlla rek tax ak jëmi sëriñ Tuubaa te mënuñoo waxante dëgg na ku nekk dem doxi doxam bu ëllëgee kenn ku nekk lijjanti boppam. léeg-léeg nga dégg ñu gàtt xel te gàtt xam-xam naan kenn mënta ramu kenn ñoom ñoo mënta ramu fi aduna bi limi metti metti metti da ngay am sa problème ñëw taxaw wax ko nit léegi léegi léegi léegi mu fajal la sa soxla sakantuma ak leneen nañu bayyi ci yeeg tappale tapale ak bëgg wax lu la neex rek taxaw ci barab di wax lu la neex waaye yow boo barab ba nga taxaw di fa wax lu la neex boko waxe bo nopi ba te lépp dara du ci deug nga joge ci benen barab bo xamni da nga wo fa wara taxaw wax deug bo xalaté barab ba nga joge xana da nga rus taxaw di waxaat deug ndax mëno taxaw ci barab wax lu deug bo nopi dem taxaw ci barab na nga ngay leneen lu deug mënul ne nañuy waxante dëgg te yàlla tax nañuy jaamu sama borom bu ñu dañoo gëm Serigne Touba te gëm ni ku yàlla gërëmal ab liggéeyaloon te bëgg nañoo jariñoo ngërëm loole nañ ko defal lim bëgg sëriñ Touba bëggul ci ñun dara. léegi ñun ndaw ñëpp li ñuy sàkk mooy ñaanal ñu ñu bokk ci milliardaire yi Serigne Touba soxla wut loolu Serigne Touba soxla wut loolu. Serigne Touba li mu bëgg ci ñun mooy yàlla sama borom li mu bëgg ci ñun nekk ci ñun te ñu jëfe ko. kon na ngeen jàng fer ijo ana jëwriñ Ahmad jëwriñ waxoon naa ko waxoon naa leen kaay fi waxoon naa leen ko nee leen woon yéen ndaw ñi fi nekk ñepp kër Serigne Touba ngi fi sang yaa ngi nii Serigne Touba defal leen ci biir dëkk bi jàng leen jàng leen fer iji xam seen diine du leen wàññi dara ay waxambaane ngeen fi mu ne ni koo ci mayoon jabar bu ko yàlla sama borom dimbalee du yàgg dara mu am tu tànk xale yu jigéen yi koo ci mayoon borom kër bu ko sama borom dimbalee du yàgg dara mu am boroom mu mu am ca tu tàng waaw ku mel noonu mënoo mënoo sangu farata mënoo jàpp mënoo julli mënoo jàng alxuraan feroo ijji arafu xamuloo ko ngeen defe loolu jaadul mu am ay mag jëmm ñoo xamante ni bi dem nañ tey ba seeni doom bu solee seen mbubb mu jot leen mënuñoo sangu farata mënuñoo jàpp mënuñoo julli alxu mënuñoo jàng alxuraan mënuñoo julli loolu ñaaw na ci ab jullit ñun dañoo gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ay ñoo xamante ni bi dañ ko weddi dañoo gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñu ay nasaraan duñu ay maajoos ay jullit lañu te yàlla rek a tax kon nag dañuy fexe ba suñu diine li mu ñu sant ñu xam ko sama mbokki catholique yi nga xamante ni bii Seydina Heesa mooy seen sëriñ mooy seen yonent moom la ñu gëm ñu góor góor lu fexe ba diine joojee ñu jàpp lam leen digal ñu xam ko nit da ngay am fulla boo demee ba engagé wu nekk ci dara da ngay fexe ba la cay yëlla nga xam ko te di ko jëfe lii rek la bu ko defee ñun ñi nga xam ne nag dañ di ay murit yaakaar Serigne Touba hey yàlla laay waxal gis nga tappale yu bari yi ñu nekk nii buñ ko bàyyiwut ñoo Serigne Touba sequñu dara mënoo ne ab murit nga Serigne Touba nga yaakaar Serigne Touba li mu daj ci diine l'islam ñu ne allahu akbar ca jàkka ja nga romb nit ñi jam jàll sa yoon dem sa yoon te fu jant bi maasee loo yor ci xaalis dem jënd ko sàngara naan yaag a yem looy loolu yàlla di doyeeti

j'ai le droit de le défendre bu ñu ko tuumaalee lo xamné amul ma taxaw devant tout le monde ni len ni amul Kiko ko ko moko moo de mo nek ci lu ko neex waye ki mom digalul kenn len luddul li yalla digle ak yonent bi sallalahu alayhi wa sallam leneen lu way def nak yaa ko def yalla sama borom toñu kenn Serigne Touba mu bax mu tedd mi ñu yaakaar tooñut kenn bañ nako ko ba ña ko bañ ci jógee dañ len jéggal na len ci xol bu sedd guuy ndegam gor lu na ba mënu leen a dox sama digënté ak sama borom man la ngeen ma doon def ndagam yàlla musal na ma ci yéen ba loru leen ma jéggal naa leen lu ngeen ma doon def lépp léegi nag man ma dem continuer des ak yàlla sama borom ba ni ko suñ borom defee mu nekk barsax ñun ñu de bàyyi ñu fii ci àdduna ndagam ñun la bàyyi ci ginnaawam nañu góorgóorlu dimbale leen ma lu ngeen saayira saayira saayira lu ngeen topp topp topp lu saayir bi tar tar tar tar ak nu mu mënti demee xoola Serigne Touba ci suñu biir xol mu jeex takk yeneen di ci des du dara dégg ci biir xol nag. da ngay nango jaamu sa borom te da ngay nango mandu sa diggante ak nit ñi te it da nga war doon jambar jo xamanteni bi da nga war di liggéey ngir teral say wayjur ak teral sa bop tay tu tank yépp man musuma du ma nangoo tok fenn fu ñuy sikkee tu tank yi way ndaw ñi dañoo réew ndaw ñi dañoo isole nanggam. arrogant dañu nangam dañu nangam fuñ ko waxee man leen déedéet pourtant yow mi ko wax de bo sété sa diggante ak ñom ñoo la gën xol tay ndaw logis gis muy dem ben yene kep la moy nan lay ko yalla di dimbalé ba mu teral ay way juram ko koy bëgg na bax nañ ko accompagner rek jappalé ko buñ ko ci accompagner jappalé ko rek war ki serigne touba fu mu bëgg ag dina fa agalé waye di balami mi nit ñi diw dafa say say dafa saggan dafa ceci dafa yare di ko dafa nangam dédé fi leen ñi ngi def loolu ci suñu bop rek kenn du avancer ba paré réew mi ñu nekk Sénégal dafa am nattu bu doy war buñu suñu borom tek xam nga aw askan bu ñu demee ba yéenante wu jàmm rek musiba am na bu ñu bëggee suñu taw feex gën a yaatu nag na yéenate jàmm ndax ki nga yéenewut jàmm te suñ borom def ci moom jàmm loo ko yéene yéene aw ay awoo yaa koy mujjee waaye moom suñu borom defal na ko jàmm ndax aw ay dëkkee aw ay sax ci aw ay weesuwut ki yàlla sama borom defal jàmm nga yéene ko aw ay sa saa xëyee gis jàmmam di yokk tey sab xol di ca matti ñi fi nekk di ay boroom kër ñun senegal ni ñu bëgg a dundee ak jigéen baaxut du noonu yàlla suñu borom digalewu ko noonu yu baree bare dañ koy def ci suñu sago lañ ko def waaye teguwut fenn yoree soxna naan ko sa àjjana ci sama loxo la nekk ak bu ma la gërëmut yàlla du la gërëm yow miy war a gërëmee da ngay ba da bàyyi ba am ngërëm ba noppi ba am ku la gërëm nga soog a gërëm kenn voilà ku amul ngërëmul kenn mënoo gërëm kenn dafa am misal muñ ci joxe mo xamanteni dama len koy waxat léegi mu leer dama deg ci histoire ñu ni ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul fi fi rem dafa am ko xamni soxnam dafa laqku ñu ñëw wax ko serigne bi mu ne nañ ko denc biñ ko wajale ba denc ko ba nopp ba defal ko liñ koy defal mu ñewat ci serigne bi diko ko ci serigne bi ni ko laaj ko ni ko nom fo nu top toba ak yëm nañ démé yëpp mu laaj ko serigne bi serigne bi mu wax ko lépp ba noppi ni ko mbàkkee man day gëreum nako sëriñ bak teggini ya nam nekkee won teggini ya. nga xamni boko boo dara lo xamanteni ni jubut jubuut danaan teg du la tont ba nga répété ko ba ñett yoon mu sok la tont bi nga ko répété ba mi ñett yoon dafa sigi xol ko niko kula ku waji ni tek mu ne ko ku amul ngërëmul kenn munoo am munoo gërëm kenn ba yalla gërëm nit ki bala ngay mën a kenn yalla nangul la da ngay gor góorgóorlu ba am ngërëm kon nañu bayyi caaxaan yoy yore soxna ci biir kër taxul mu nekk sab jàmm sab nawle lañ la jox traitement boo def ci sa bopp rek moom nga war a def ak moom te ngeen ñemel seen bopp seen njaboot fexe leen seen njaboot yi jege leen sa bañ leen a sori ndax gis nga mu kàllaf kilifa gu fi toog sag njaboot ragal la di la daw ñemewuñ laa jege saa boo dugg see ci kër gi ñëpp di daw kenn ku nekk di wut foo làqu bu ëllëgee dinañ génn ci mbedd mi def loo xam ni sa na lay doon doo ci mën dara ba ba ngay dee ci fitna ngay nekk boo ñemelee sa bopp sag njaboot nag duñ la nëbbutu li ñuy def lépp ci seen biir kër lañ koy defee fu ñu mënti dem lu mu guddi guddi dañuy ñibbi siwaat seen biir kër ndax li ñu am seen biir kër mu ñu ko am feneen te yéen tamit yéen maag yéen du neex parce que faaw ñuy waxante dëgg gis nga abandon bi ngeen di def seen wayjur yi fitna rek la di yokk coono ndax ku fi bàyyi say wayjur ci wayjur yi jàmbur nga dem te boo fa demee jàmm rek nga fay nekkee de amul kenn ku fi way juri jàmbur di héberger nga fay nekk di gens wala ngay tox yàmba wala ngay naan sàngara ñu dale ca bàyyi ku dem ci kër jàmbur la ko neex borom képp nga fay def waaw yow nag ndegam boo génnee sa kër gii dem kër jàmbur nga fay dem te boo ko demee la la neex rek ngay def yaakaar naan boo ko defee dëkk ak say mbokk dëkk leen ak seen i mbokk te bañ a abandonné seen i mbokk ndax tay lu xew ci yeen bala faa kenn sañ dara bala kenn sañ dara ci yeen seen mbokk mo jitu ci yeen ba kon nak bi ngay dund diko man diko tal talal say mbokk jegeel say mbokk jaxasool ak say mbokk xamantel ak say mbokk ngir bu ëllëgee ab say say dula la jaar fenn ngir yakal la dara waye ku genn say mbokk man nga ngaa ak lu ne te lu ne mën naa ak yow kon na ngeen wat ci seen mbokk ku fi amul reero ak say wayjur ma ngi leen koy ñaan ngir jëmi serigne touba de nga ko jëwri góor ñi jigéen ñi ñëpp la ci don li ngay don don don don don don tout tank il faut nga jéem a lu bu baax yàgg ñi nga andal ngeen gëna jëlat ci responsabilité dafa seen bop ay mak de nga ko de bu ko defé mbokk talibé yi yeen tamit dama leena don ak mom ndax jëwriñ mënta ñak man nee leen day wu association wuma tontinuma liggéeyub Serigne Touba lay yore te lim ñu fi bàyyi loon loolu la bëgg ñu dundalat ko muy daara daara amul xulo amul xex amul werante jang jàngale tarbiya yar diglu ndigal ñu jox la ko nga jëfé ko té yalla rek tax te sa wax du bëri di jëf te nopi de len jëf jëf ju rafet te nopi ndax de ngeen mo bu baax jaamu yalla liggéey japp seen jaamu sant mu len len bu ko defee seeni woy jur ñu daleel seen xel bu baax ñu ci bari ñu ngi may dégg xëy na ñu ci bari dinañ ma dégg après ñu jiitu yàlla na sama borom yërëm leen te jéggal leen ñu fi des yàlla na sama borom teg ci ñoom loxo bàyyi leen ci kanamu njaboot yi ñu yàgg fi te wér seen njaboot yi te biñ ñëwee ci man ginnaaw bu ma leen soññee ci li ma leen di soññ ba noppi dafa am liggéey boo xam ne dama leen koy liggéey loolu ndax dañoo toll ci jamono joo xamante ni bi jamono ji dafa lëj te lu fi sànq nit dafa gaaw man naa leen soxlawuma dërëm duma ko laaj te ku ma ko indilit boo fa toogee tuuti suñu moromum jàmm mu suñu borom yabal mu ñëw jël si ko ñu jox ko ko mu def loolu man sonn lu ma kenn ci dara ndax damaa mas a gëm ci sama bopp ni lépp loo xam ne maa ngi toog di ko xaar ci nit ki ngir mu indil ma ko bu ma góorgóorlu jee yàlla sama borom mën na maa jox lu ko ëpp man noonu lay dundee noonu lay fonctionner du tere nag barke li fi Sëriñ Tuubaa def mi ngi fi murit bu la gis dana la yéene donte 10 francs donte 5 francs la am dërëm wala ñaar dërëm wala fukk wala téeméer wala ñaar téeméer nu mën na toll dina ko yëkkati ci poosam jox la ko ngir jëmmi Serigne Touba ndax joxu la ko Serigne Touba la jox loolee nag boo amee ma ko dalawaat ko ci liggéey Serigne Touba bi waaye ñoom dama ni leen lépp loo xam ne na naroon ngeen koo jël di ma ko jox di ko def mu naan day dox addiya sama diggante ak yéen joxal leen ma ko mag ñee nga xamante ni dañoo nekk fa bëyti fa maam Cerno Birahim tëdd sëñ Mourao Balla nekk fa Seydina Ousmane nekk fa njabootuk maam Cerno ñu jàng ko bu takku takkusaanee ñu jàng ko bu timisee ñu jàng ko bu gee jotee ñu jàng ko boole ko xasida yi chaque jour ñu ngi kuréel foo leen fekk ñi ngi jaamu seen borom comme ni mu leen waree demuñu dikkuñu amuñu beneen soxla ma ne leen jàppale leen ma ndax bisuf ajjuma boobu ñu koy def sama maam Marama Sëy mi nga xamante ni bi ci biir kër Cheikh Ibrahima Fall la yaroo fa la juddoo fa la yaroo fa la màgge ba Cheikh Ibrahima jël ko jox ko Serigne Touba Serigne Touba jël ko jox ko maam Thierno soxna Marama Sëy moo ma waxoon ci làmmiñu boppam ni ma lii may def de ajjuma ju jot bi maam Thierno dëkkee bayti ba fii may toog di wax yow di Thierno musuma ko manqué bu ma sañoon nag du manqué ba ma ko waxee ma ne ko am naa ci yéene de ñaanal ma ci bu baax yàlla sama borom dimbali ma ba ni nga ko bëggee ma man ko nee defee. xale yi tamit ba ma leen ko joxee ba léegi ça fait des années ajjuma ju jot ñu di ko def ñu di ko def ba bis ma woo Médoune Thioune mais mu ñëw ma ne ko Médoune li ngeen ma daan defal aljuma ju jot ci wa bay war ci seen keur dama bëgg aljuma ju jot bu ñëwote ñu jox leen la war ci seen keur aljuma ju ba aljuma ju delu si ñu wala ñu di leen ko jox par wër wala ñu di leen ko jox par ané yalla ñu ko serigne Touba defal barke khadim rasul loolu moy sama yene dama bëgg ñu góorgóorlu liggéeyal yalla ñu liggéeyal yalla xam nga julli wor jang alxuraan ndigalul suñu borom la motax man leen kep ku ko deful da nga wedd yalla ndax sama borom mo ni de leen julli de leen wor de leen jang de leen sak asaka di génne muurum koor di dem màkk ci bu ngeen ko mënee ainsi de suite yu bari la mais yi nga xam ne moo ci gën a terre à terre mooy julli ak woor nga xamante ni bi dafa yomb kenn ku ci nekk ci ñun te am ñu lank ñoo xamante ni bi dañoo lank ni duñ ko def ay ay ay na yàlla jégal ay samba booy lañ waaye loolu moom loolu du dara ku ko defut rek da ngaa saay-saay xam nga ni loolu moom kenn digalu ko kenn fi mu ne am na ñu bari ci Sénégal ñoo xam ne xamuñu wax illaa ñu bëgg ko waxee nu mu leen neexee dañoo jàpp na ñun murid yi ñoom dañoo nekk ci lu ñu neex rek du ñu julli du ñu woor duñu jàmm yàlla daanaka ñoo ngi ñu ñoo ngi ñu weddi yàlla la ñu yemale léeg-léeg nga gis ci internet bi wax bu tar wax bu metti boo xamante ni bi da lay leer ni ñii kat lii ñu wax jëmale ko ci kii jëf jëñu jëf ba ka ko gis te sañ am sañ-sañu taxaw wax loole wax dëgg yàlla wax jooju bu ñu ko jëmale woon ci baayam wala maamam du ko neex ñu ci bari dañuy fàttali ne Serigne Touba ñun dañoo askanoo ci moom mooy suñu maam mooy suñu deret mooy suñu lépp te mësatuñ kenn de moom nit la doomu aadama la woon nit ñu nekkoon ci kaw suuf di dund ñam nekkaloon ba ñi mujj ci ginnaawam amul kenn ku mas a taxaw ni la Ahmadou wax na ma bi sàngam nangam wala def na ma bi sàngam nangam ci loo xamante ni buñ ko seetee nuyu na jaaduwul kon nag wax dëgg yàlla nañu nit ñi dimbale ngir jëmi Serigne Touba nañu xam li Serigne bi bëgg ci ñun ñu nekk ca te yi ci des tappale ak caaxaan yi ñu bàyyi ko yi ci des yëpp du dara dee leen julli ndax dégg ngeen ma bu baax dee leen julli ngir jëmmi Serigne tuubaa Serigne Touba li mu daj ci lislaam ba julli ci géej li mu daj ci diine l'islam bu julli ci géej xëy na loolu sax boo koy wax borom xel yu gàtt yi mën nañ am nuñ koy neneen nuñ koy demee man moo tax yenn wax yu bari yi du ci fekk man dama leen di wax li fi ne bureau bi fii fi ndar bi fa sëriñ Touba di dugg fekk fay nasaraan ñoo xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi gëmuñu alxuraan te Serigne Touba am na ay am na ay Serigne yu ko fa jiitu woon objectif bi li taxoon tubaab bi woote fii fi ndar sëriñ bu ñu jàkkaarlool xam ne yaa ngi yoroon daalay alxuraan di yar nit ñi ci diine boo ñëwee jàkkaarloog ñoom lañ lay wax mooy weddil yàlla weddi yonente bi weddi alxuraan te pourtant am na ñu ko nangu de am na ñu ko def de sëriñ Tuubaa xam ne ne bu ko teggin defoon waaye Sénégal réalité bi ni mu demee moo tax bu ko teggin defoon dafa am ay kilifa yoo xam ni dañoo am lu ñu fekke woon ca démb joojee ñu wax ci seen làmmiñ ñu dégg bu ko teggin defoon mën nañ leen ne diw ak diw ci biir Sénégal gii ñoo xam ne ñëpp ngi leen di tudd ñëpp ngi leen di dégg moo demee bureau Ndar bu leen tubaab bi weddiloo yàlla weddiloo leen yonent bi weddiloo leen alxuraan dañ koo nangu accepté la tubaab ba bëgg Serigne Touba mi ko lankoon nag moo tax ñu jàpp ko yóbbu Serigne Touba lu tax ñu yóbbu ko bàyyi fi ñee ci des waaw ku nangu ku ku nangu kay kenn jëmewu la fenn waaye ku lank kay yow bu ñu fitna yow la fitnal serigne touba lamu lamu lamu len lankal motax ñu diko ñu fitnal ko tay yobuko ko liñ ko yob ñun nak fitna jojje duñ ko xam xam ni serigne touba cause bi motax ñu fitnal ko ci li ba nopi ñun ñu xey bayyi fa lolé yépp bu ko defé ngeen gëna préparer wat seen bop ndax jamono ji dëkk bi ma ngi gis am lu yor di fi dugg wajal len seen bop bu baax ñun ay goor ñu nek ay goor jigen que ça soit la de ngeen lima wax ba voilà ay goor am ay góor lañu mënuñoo nekk ay góor jigéen il n'en a même pas question ñuy nekk ay góor jigéen pas de question voilà yéen jigéen ñi aussi ay jigéen ngeen yàlla sama borom dafa denc ci yéen secret boppam leeru boppam la jël def ko ci yéen faites très attention mënu leen a nekk leneen lu dul jigéen ndax dégg ngeen moo bu baax bu leen nangu mukk kenn di leen dugal ci ñàkk fayda yooyu Mbacke Balla maa ngi jégalu bu baax Serigne Ba maa ngi jégalu bu baax jëwri jërëjëf ay jëwriñ kon liggéey baa ngi noonu